leen a joxaat li nga xam ne daal moo day leeral Abdou Khadre maa ngi lay jaajëfal Mereka gue real lah. ñuy bëre pare bu ñu nga téye kaaraange yi noonu ay mar waaw waaw waaw ñoom lay nekk connecté bu baax a baax a baax ñu gisal kàddu yi euh, kii di Pape Abdoulaye Touré euh, mu joxe euh, li nga xam ne naa la moo ci réaction bu baax la rek man mooy réew yow lu ma dal ma dalay réew mi aja bu baax aja baax na bismillah sama gaay ñëwal ni ñu seq ko anda yaa ci anda ah, seq la waaw seq la gaay damaa Cibra jëlal yow Fadal jëlal jëlal rek amul solo yow dafa la neex baax na baax na Pape Demba ginnaaw bi ñu la nuyoo di la ziar Pape Pape Doudou Pape Abdoulaye ñu ngi lay nuyu baax di la ziare tey ñu fekk la fii ci lycée bu Kër Bassar ñu dégg fi problème boo xam ne booba léegi gis nañ fi ay citoyens yi ñëw bëgg a voté am problème voté ba ñeneen sax am ay xol yu tàng dañuy jóg ba ay gaz la ko mettal am fii noo jàngatee mbir waaw maa di fay euh, di fas yéene waxtaan ak euh, sénégalais yu nekk ci biir réew mi ak ñu nekk ci bitim réew pour alerte leen par rapport li nga xamante ne moo nekk di xew Kër ma Massar te bettul kenn ci ku xam Kër Massar depuis Macky Sall bu mu fi nekkee wala boog ci ñaari élection yu mujj muy élection locale muy élection législative donc lii xew Kër Massar lenn kese la Macky Sall la mosu fi gagné en tout cas ñaari élection yu mujj yi yëpp daf ko perte. élection locale département de Kër Massar six communes la benn commune la fi gagné muy commune de Malika te dañ ko rattrapé bu élection législative yi jotee donc loolu di wane ni ils ont une volonté en tout cas manifeste d' après ñun constatation yu ñu def ak témoignage yu ñu yu ñu yu ñu yu ñu jot daf dafa am en tout cas benn benn benn benn système de sabotage pour empêcher ñi nga xamante ne ñoo yor. ay carte électeur bu bokk département de Pikine parce que Kër Massar ci département de Pikine la bokkoon commune la woon après lañ ko démar euh, démentalisé daal di koy def département département boobu c'était en deux mille vingt et mais di wax ni lors de deux élections muy locale muy législative gis nga euh, euh, administration territoriale bi dañoo jël les cartes électeurs les les nouvelles nouvelle mooy yu bees yi indi ko ci biir centre bi képp ku ñëw indi ancienne bi dañ laa naan demal fële nga jëli sa carte nga ñëw voté tey lu tax defuñu ko lan moo changé diggante élection locale deux mille vingt deux ak élection législative deux mille vingt deux ci diggante bi ba tey defuñu loolu boobu nekk benn ñaareel bi mooy le constat est général le constat mooy am na ñoo xamante ni dañoo am département de Pikine ils ont voté au niveau du bureau de vote vingt sept am ñoo xamante ne dañoo ñëw pour voter nekk ci même situation ñu bañal leen ko looloo jaaxal ñu bari. loolu mooy illégalité. nangul ko ñi bañal ko alors que les sénégalais sont d'égale dignité légal ñoom ñëpp ñoo yem ci kanamu yoon la loi c'est la loi elle est générale et impersonnelle ñun loolu lañ jàng donc mënoo nangul lii ñi bañal ko ñële et ñu ñu gën a favoriser mooy ñu faree ci ñoom loolu moo nekk di xew ici à Kër Massar waaye di dalal xelu population Kër Massar bi yëpp parce que lu ñu sàcc sàcc sàcc du tee ci kanam tuuti di ngeen dégg bàcc yi. Macky Sall ne peut pas gagner le département de Keur Massar il est conscient de la situation maintenant nag lu lu lu am mooy dañuy essayer atténuer l'échec bu ñu nar a am fii ci Kër Massar maanaam suñu leen waroon dumaa junniy voix ñu fexee la taux bu mu nekk ay téeméer ak ay ak lu topp loolu la ñuy jéem a wàññi mais mënuñoo wàññi défaite bi nga xamante ne am nañ ko déjà dans le département de Kër Massar parce que Kër Massar bu mu wonee ginnaaw Macky Sall yàgg na Kër Massar dañoo sonn ci inondation yi chaque année ñu ñuy wax problème inondation plus de sept cent milliards ñu dugal ko ci Kër Massar gisu ci dara demal nga xool euh, mbëbës fu mu nekk tey fii ñu fi bëri amee nañ tuberculose suñu doom yi ba léegi ay promesse rek ni ñuy jot dinañ ko délocaliser wala dinañ ko réformer xool nuñ koy defaree dara amu ci insécurité fii la fekk baax am na suñu benn magu Pastef boo xam ne dañ ko agressé si buntu këram ginnaaw bu mu jógee ci benn activité mu ñëw ñu agressé ko rey ko fan la mujj première victime bu projet bi muy Mariama Sarr jigéen fii lañ ko faatee fii Kër Massar Mariama Sagna fii lañ ko faatee fii Kër Massar donc Kër ma saar lu muy dund mënul ànd ak nguur parce que ku ñu jox durant douze ans un budget capitalisé de cinquante mille milliards Kër Massar nekk situation parce que respecté cinquante mille non attention waxuma cinquante milliards de cinquante mille milliards un milliard égal mille millions mille millions mooy un milliard donc cinquante mille milliards ñu jox la ko avec une dette de près de quatorze mille milliards ñun ba léegi ñun waa Kër Massar sentiru ñu suñu bopp ci nguuru Macky Sall moo tax dañoo conscient moo tax élection locale am may ñu ko dara élection législative député yu département bi am yëpp dañ koo jël jébbal ko waa Yewwi Askan bi donc loolu la ñu bëggoon a anticiper moo waral ñuy def seen ay njuuj njaaj ku far ci ñoom soo ñëwee ci bureau de vote bi ñu bàyyi la nga voté même su fekkee département de Pikine nga bokk waaye ku ñu gis sa photo Euh, pros wala kenn ñu ne la yow doo am na sànq kuñ kuñ kuñ ku ma ko wax fii léegi koo xamante def na bay waaj a voté mais téléphone am moo tàkk rek ñu gis ci Sonko ñu ne ko no no yow mënoo voté département de Pikine bi lii moo nekk di xew Kër Massar et que c'est scandaleux ce qui est de se passer à Kër Massar c'est scandaleux élection présidentielle ça doit être une fête pour toute la nation parce que c'est la rencontre d'un leader et son peuple dañoo waroon bàyyi l' autorité territoriale bi dégg naa préfet dégg naa préfet mu ne euh, pour ñi nga xamante ni jëlee gu ñu woon seeni i te carte yu ñu yor mu nekk département de Pikine day bàyyi ba deuxième tour su amee mu jox leen ko mardi ñuy wax préfet de Kër Massar deuxième tour du am yaa ngi nax sa bopp lii bàcc bi prib dib la et que dans un instant di ngeen xam ni les sénégalais sont déterminés pour le changement il est grand temps ñu jëlee fi guerre jëlee fi injustice jëlee fi jaayam doole Kër Massar victime la pour le régime de Macky Sall ñi ñu jàpp ci détenu politique kër département de Kër Massar lu mu ci am beneen département amu ko ci man mii Kër Massar laa dëkk ak ñeneen ak ñeneen te ñun ay euh, ay exemple lañ par rapport ak loolu. kon daal slogan bi doon dégg tey mooy xëdd vote ji ndogu civilé ba tey yéen ngi ci. ba tey ñi ngi ci te man li ma gën a impressionné parce que après bu ñu voté gis nga ñaari capp lañ capp sax parce que dañoo sóoraale président Ousmane Sonko mu sell mi ñu jox jomaay benn. jox son ko benn mais ginnaaw bu ñu voté dañoo jël suñu temps ànd ak suñu équipe ñuy sillonner dans les différents centres de vote mais le constat est général ñi am département de Pikine doo leen voté Pape Alé Niang avant muy def euh, déclaration bi dañ doon voté fii nice mais mu def ko mu am engouement ñëpp daw wutali si fa ñu tëj ko c'est quelle loi ça une loi de circonstance avec avec benn ñu ngi dégg benn représentant moo fa amoon ci bureau de vote bi donc ñu ciy dégg yu bëree bëri yoo xamante ne c'est vraiment déplorable mais loolu aussi ça n'empêche en en rien le souhait la détermination et l'engagement de cette jeunesse debout déterminer pour euh, opter en tout cas ou bien pour valider le changement à partir de maintenant gis nañu centre de vote yi ñu dem yëpp jeunes yi dañoo voté ba pare dem toog ñibbi wuñu de moo tax nañ bon su fekkee am na ñu ñuy suivre ci live yi te nekk dans les autres centres nañu organiser dem jënd ay mburu dem jënd ay ndogu ndax de jeunes yi ma gis ci centres yi nañuy ndogoo dañuy sécuriser les votes déjà ñi ñu a voté nii rek même ñu voté wul mais ñu jot a voté rek ñun am nañ yàqin ne Amadou Ba soo demee tey ci poubelle bi moo fees del donc suñu mbokk chrétiens yi war a def pàcc suba comme na ñoom seen maron boobu noonu dafa ndiroog cegedege jarul sax ñuy wuti cegedege parce que xam naa ni nañ ko ci jàmm parce que fees na fa del Kermassar a opté pour le changement et que dans quelques instants, vous en aurez la confirmation. Comme amee lors des élections locales, lors des élections législatives, d'encourager cette jeunesse debout, engagée et déterminée de rester sur les lieux. Nous avons ay takk der yu dul jeex Kër Massar ku fi ñëw da ngay foog ne sa guerre fi am gendarme yaa ngi ne suñu kanam fees nañ fi del del del ah. c'est une tentative d'intimidation mais ce qu'on est en train de faire ce n'est pas illégal nous sommes des citoyens on a exercé notre droit constitutionnel le vote on a le plein droit de rester aux alentours du centre de vote pour pouvoir sécuriser no votes parce que c'est nos votes ñun ñoo voté ñooy sécuriser suñu bopp suñu ay vote donc bu leen kenn ébranlé bu leen kenn intimider toog leen parce que sànq dégg nañu ay grenades lacrymogènes yu fi tàkk et tout ça loolu mënoon na ñàkk loolu mënoon na ñàkk surtout ci régime boo xamante ne dafay dem donc na force de l'ordre yi delloowaat seen i xel te xam ne ñii fi nekk bientôt ils vont quitter ay heure moo leen dese fii c'est après non ils vont quitter ce pays donc loolu yëpp mënoon na ñàkk loo xamante ne fet la waroon doon ñu ciy taal ay grenades lacrymogènes franchement ça ternit l'image du Sénégal ah su fekkee yeneen département yëpp dañoo mel ni département de Kër Massar deuxième tour Macky Sall su fa demee na sant yàlla bu baax a baax. du fa dem mënul nekk. ku man dugg naa gis naa dem naa ci poubelle yi jekki naa pour nga dajeeg bulletin wu jomaay ah, euh, ci poubelle non c'est tout un problème. Amadou boobu da ngay ñëw rek mu ne la fang Amadou piite xaw ma julde ba pi piite piita moom moom dafa fees dell ci poubelle yi loolu day wone engagement ak détermination bi. affluence bi effectivement gars yi teel na nañoo yeew teel na ñoo ñëw ci centre yi rang nañu voté nañu. toog nañu di sécuriser seen i vote loolu day wane détermination donc ñi ngi encouragé ñëpp di leen wax na ñëpp toog ci centre de vote yi. problème la ñu am am na ñoo xamante ne ci suba. Mm-hmm. voté woon nañ. waaw même problème. préfet moo wootee bi ñu xamee ne ñu ngi leen di duma dumay met mm-hmm. préfet moo wootee éliminé ko. préfet ñoo xamante ni voté nañ lii. ba dem nañ seen ñaar ñu ma ci dajal léegi. ñoo xamante ne ci même situation lañ nekk. dañoo voté bureau 27. préfet woote ne nañ ko annulé ndax lan Pape Alé Niang def na ci annonce. ñëpp ñu daw di wut ci bureau 27 ñu ne léegi nañ ko annulé mais c'est quel type de loi ça une loi de circonstance loi de contexte nga xam ne contexte su la arrangé nga appliqué su la arrangé wul doo doo nga arrêté mais c'est quel genre de de de de pratique. mais néanmoins incha allah nañu toog fii ñun ñëpp bientôt vous allez filmer c'est-à-dire euh, jubilé bi gaa yi war a def parce que Kër Massar génn na ci loxoy Macky Sall depuis longtemps. jërëjëf jërëjëf jërëjëf kàddu yooyu ñu ngi xaarandi di xaar fu wàllandi wu njëkk ba naar naar